kaabatul musharrafa gi nekk ci makkatal mukarrama du xabrub benn yonent du it bërëb bu ñuy raay ak a jaamu comme ni ko ñenn ñu bari di xalaate waaye néegub yàlla la ñu duppee ko baytullaahil xaraam cosaanam nag yàgg lool ci gëstu xam nañu ne malaayika yi ñoom ñoo ñi njëkk a taxawal kaaba gi mu tolloo ak baytul maamuur mi nga xam ne mi ngi ci juróom-ñaareelu asamaan suñu borom di ñu xamal ci alxuraan ci surtu Ali Imran ay fukk ak juróom ni néeg bi ñu njëkk a taxawal ci kaw suuf ngir nit ñi di fi jaamoo yàlla mooy néeg bi nekk ci bàkka te mu doon màkka di kër goo xam ne gu ñu setal la ci lépp loo xam ne taq-taq la waaye it mu doon jubluwaay ngir mboolem jullit ñépp ci jamono ju yàgg kamba gi ñépp dañu ko wonoon ginnaaw kenn toppatoowu ko waaye mu mel ne sayidina aadama moom moo njëkk a jot ndigal ngir yeesalaat ko defaraat ko ngir mu nekk bërëbu jàmmukaayu yàlla bi mu ci noppee kaaba gi daal di setaat wecc baax mel na meloon ba ci jamonoy sayidina nooxin bi nga xamee ne ndox mi mi ngi wan na nit ñi fetteerlu woon ci jamonoom ci la ñu yéegal kaaba gi ci kaw asamaan ba ci jamonoy suñu maam ibrahim bi nga bi nga xamee ne sayidina jibril rëddalaat na ko fi kaaba gi jaaroon moom moo amaat ndigalul yëkkatiwaat ko ànd ak doom jii di Seydina Ismaayil foofu lañu suñu borom di xamal ne nun noo sant Ibrahima ngir mu taxawalaat néegub yàlla bi di kaabatul musharrafa ñu wax ko ne ko bul ma bokkaale ak kenn te nga seetal sama kër gi te laabal ko ngir sama jaam ñi nga xam ne ñoo ko fas yéene wër ak ñi nga xam ne si ñoo fas yéene taxaw ak di fi sujjóot lépp ngir màggal ma loolu nekk ci alxuraan kaaba gi defar nañ ko defaraat ko yeesal nañu ko beesalaat nañu ko ci wàll gu nekk waaye taxul benn yoon ñu yokk mbaa ñu wàññi dimension bi nga xam ne moom la ko suñu borom wàcce woon ci benn ci koñi kaaba gi féete gànnaar boo demee di nga fa fekk li ñuy tuddee xajarul aswad te mooy xeer wu ñuul wi nga xam ne si jamono yi dañ ko wërale ak kuttumbalu xaalis xeer woowu wax nañu ne mi ngi jóge aljana Seydina Jibril moo ko indiwaatal Seydina Ibrahim keroog bi nga xamee ne mu ngi taxawaatal kaaba gi ànd ak doomam jooju ngir mu dimbale ñi nga xam ne ñoom ñooy wër kaaba gi ñu am bërëb bu ñuy déparé ngir mën a def seen tawaaf muy wër gi ñuy wër kaaba gi xeer la woo xam ne des koo war a raay ngir barkeelu des ko war a fóon sëgg ci waaye lépp nag du lu ñuy jaamu waaye lu ñuy màggale suñu borom rek la ak fàttaliku ko aj benn la ci ponk lislaam yi nga xam ne saa ko jullit bi bàyyee mën ko suñu borom dana ko ci topp waaye bokk na rek ci ay ponki aj li ñuy wax tawaaf muy wër kaaba gi juróom-ñaari yoon ci képp ku suñu borom may nga dem ci baytullaahil xaram ngir aj tawaaf day fedd li ngëmug jullit gi ak it yaakaar gu mu yaakaar suñu borom kaaba gi moom la ñuy tuddee la maanaam jëmuwaay bi nga xam ne si jullit ñépp fa la ñuy jublu saa bu ñuy julli ak fépp fu ñu nekk ci àdduna bi muy wane kon boolook jullit ñi ak seenug bennoo ngir mën a tënk jullit ñépp ci seenu jàmm yàlla fépp fu ñu nekk ci kaw suuf lislaam daf leen a digtal saa bu ñuy julli ñu jublu xibla te mooy ci kaabatul musharrafa